mbokki Julidi yi mbokki taalibe yi mbokki lislaam yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal umma islaam yépp jàmm ak xéewal ak mucc di sant ak gërëm xalifa général di murit Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke sunu borom subhaanahu wa bàyyi ko ci sunu kanam ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jiite turux suufi yi yépp ci àdduna bi njëkki ci ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal Afrique ak fépp mbokk yi tey ñu dellusi ci sunu sit internet murit point info war a def suñu temu jaar-jaari mag ñi di sant ki ñu nekkal ci technique bi di Serigne Mbacke Dieng war a waxtaane tey kenn ci njabootuk sëriñ tubaa cheikhul xadim muy a cheikh mouhamadul amin baara mbakke ndaxte bu ñu waxee cheikh mouhamadul amin baara mbakke di leruk soxna Aminata Lo ak sëriñ tubaa cheikhul khadim sunu xel dem ci mbakke màggaluk mbakke kajoor li nak ab teunk la ci dunduk cheikh mohammedul Amin ibn Serigne Touba cheikhuna Ahmadou Bamba xaadimu rasul radiyallahu anhuma a cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke mi ngi feeñ jamono ji mooy 1891 ci Touba. ndax rakk la ci sëriñ Mouhamadul Moustapha topp ci moom te sëriñ Mouhamadul Moustapha mi ngi gane jamono 1888 kon mu mel ne Cheikh Mouhamadul Amine Baara moomu woy juróomu jigéen mooy soxna Aminata Lo moom Tafsir Mokhtar Binta ak feeñam jamono. ak feeñam jamono jeexintal lool ci wooteb sëriñ bi ndax sëriñ bi dafa digal taalibe yi taalibe yu mag yi ko toppoon muy seex si ñu tasaaroo ci réew mi di jottali wooteem bi di wooteb lislaam di yoonu morit Sëriñ Tuubaa lañ doon jot li message ak akum njàngaleem ba mbooloo mu bari lool dikk ci yoon wi kon loolu doon na lu réeréy lool ci istuwaaru yoonu murit ndaxte tombe gim tombeek Sëriñ tubaa tasaare mag ñi ci réew mi ñuy tàmbali yoo woote bi yoonu murit mu mel na yonent bi alayhi salaatu wasalaam lislaam bi muy door a tàmbali addaawatu sirriya la tàmbalee muy woote boo xam ne woote secret la ñetti at lislaam ñu di ko woote ci nëbbutu bu ñu nodd di laqatu ci kër yi duñu ko ñemee bëral ngir boobu amagul doole bi nga xamee ni am na doole sunu borom subhaanahu wa taala wax yonent bi ne ko fasda bi ma tumar léegi nag béralal li ñu la diggal muy lislaam nga wax ko ca kaw mu tombeek duggug islaam islaamu sayduna omar ibnul xataab omar ne moom du bokk ci diine joo xam ne dañuy nëbbatu dañ ko génnee ba ca kaaba ga bilaal taxaw nodd ñépp dégg ñu julli omar moo njëkk a béral lislaam ji ci daawatu sirriya bi jeex daawatul jahriya bi ñëw mu mel ne Serigne Touba Cheikhoul Khadim Cheikh Mamadou Lamine bi muy gane jamono dafa tombeek sëriñ bi di fésal daawam bi wooteem bi di lislaam di beesalaat tariqa tasawuf di beesalaat tamit kadalika eh, di tëjdid di yeesal lislaam ndax ku ne xam na ne bokk na ci ñi nga xam ne ay mujaddidun lañ dañoo dikkoon fekk diine ràpp ñu kengir ngir yeesal ko kon ganek jamonok cheikh mohamadou lamine bara lolou la tombel am njàngam njàngum cheikh mohamadul amin ko téla dal alquran la ndikkee ci njàngam dañ nan ko téla dal alquran la comme niko njabotuk serigne bi ba woon defé ndax ñu daan teel a dal bi yàlla bi lañ mi ngi daal alquran moom Cheikh Mouhamadou Lamine baara ci loxol woy juróom gannaaw bi woy juróom jox ko Cheikh Ibrahima Fati Mbakke boroom daaru gannaaw bi la ko jox sëriñ Dame Abdourahman Lo ak sëriñ Mbay Jaxate kon njangum cheikh mohammed Lamine Bara ci alquran ci loxoy ñatt ñooñu la jaar niki nonu jangene ci borom xam-xam yu bari tayit mom cheikh Lamine Bara ku bëggoon xam-xam la daana ñaan lu bari yalla jox ko xam-xam ak hikam yàlla may ko xam-xam bu bari lool ak xikam bokkoon na ci li mu gën a ittiwóor ba daan ko ñaan moo taxit teel naa yéeme lool ci dégg luxal arabiya ak mën a way lool dégg luxal arabiya jekk ko ak mën way loolu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara teel na ko def lool moo tax Cheikh Mahamadul Fadal wax ko ne لا لا يجاريك في الميدان من أحد في العلم والحلم أو في الجود والنصب لولوك سرين فلو تاكي نينكو نينا شيخ مولو من بارا لا لا لولو توكي لديت ديت لا لا يجاريك في الميدان من أحد أمول كن نكوي داوان دوغي يو تلفم خم خم أك لبت أكو تب أكو أسكم moo tax mu ne ko laa laa yujaarika fi lmaydaani min ahadin fi lilmi walxilmi aw fi ljuudi wannasabi amul kenn kuy dawandoog yow ci maydaan ci burwaar ci lefum xam-xam akuk lewet akuk tab akuk askan ñeent yooyu koo ci demal yow Cheikh Mouhamadou Lamine Bara not ko loolu la ko sëriñ Cheikh Mamadou Fadal tagge loolu la ko way kon loolu mooy am njàngam lenn ci am njàngam ak yaroom ci loxol sëriñ bi sëriñ Mouhamadul Amin Baara Mbàkke mi ngi yaroo ci loxol way juróom wu tedd wa doon ab murit saadiq bu taqoo ndigalul sëriñam di ko liggéeyal liggéey yu rëy ba ni ko sëriñ bi digale mu dem sànnoosi taqoo akub sëriñam sëriñ tubaa cheikhul xadim mu di ko jàngal ak di ko tarbiya ak di ko yar ak di ko ishaara ba nim ko yabale ne demal sànnoosi te sëñ séréloo sànna mu mel ne Cheikh Mouhamadou Lamine yàgg na ci sëñ séréloo sànna ginnaw bu la fa tax tuxoo door dem mbacke kadior ci ndegalul Serigne Touba Cheikh Khadim ci lettre bu mko bindon ba ci san euh, yag gum fa yag motax ab tawam fofa la gané jamono ab tawam Cheikh Modou bara fa la jamono Serigne Modou bara mbacke gannaaw bi serigne bi digal ko mu dem Mbàkke Kajoor loolu nag mi ngi amee ci atum 1910 ci la toxoo jóge Sànnoosi ci ndigalul Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim dem dëkki Mbàkke Kajoor ci 1910 ba sëriñ bi gërëm ko gërëm lu mu seere ci leetar bu siiw bi mu ko bind leetar ba mi ngi nii Serigne Touba bind ko leetar gërëm ko ngërëm lu siiw loo xam ne leetar booba Serigne Touba daf cee bind ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu amma baadu faalam bi annaka ya muhammadul amin satanaalu maqaaman yagbituka fihi jamiu amthalika wa anna kulla man maaka jamian laa yarawna illa ma yasurruhum وينفعهم في الدنيا والآخرة وهم يدخلون الجنة بغير حساب Sëriñ Tuubaa ne ko yal na yàlla ne yal na jàmm nekk ci yow ak yërmande yàlla ak barkeem ne ko ginnaaw loolu yow Muhammadul Amin na nga xam ne am nga maqaama moo xam ne ku dul yow dana la ci ñee mboolem sa morom yépp danañ la ñee ci maqaama moomu nga am képp koo xam ne ànd na ak yow du gis lu dul mbégte ci àdduna ak àllaaxira te képp ko ànd ak yow dana jariñu àdduna dana jariñu àllaaxira ba keroog muy dugg aljanna ci lu benn regle bi xëyri xisaab kon yàlla nu yàlla boole ci ñooñu Cheikh Mouhamadul Amin Baara ngir ñu dugg ci ñaan goog ko Serigne Touba Cheikhul Khadim ñaanal wala tashkuk fi kawni hada min allahi wa rasulihi ilayka wa minni wassalaam ne ko lii ma wax nag bul ci am benn sikk sàkka bul am benn sikki sàkka ci ne wax jii ma la wax man Serigne Touba mi ngi jóge ci yàlla ak yeneenteem jëm ci yow mi ngi jóge ci yàlla ak yonenteem jaar ci man jëm ci yow cant la goo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo la ko sant yonent bi feddli ko ma jottali la ko kon am nga sama cant am nga sama ngërëm am nga ngërëmul yonent bi alayhi salaatu wasalaam am nga ngërëmul sunu borom subhaanahu wa taala loolu la Serigne jublu ci wax jooju gannaaw bi mu diggal ko mu ci ay daara tarbiya Serigne Touba euh Cheikh Mamadou Lamine Bara mu ci ay daaray tarbiya ci rew mi bokku na ci daara yooyu Mbàkke Kajoor googu sañc na fa daaray tarbiya ak mbacke bari ak dar rahman ak yenen ak yenen ci bir rew mi aw mom sëriñ Mouhamadul Amin dafa topp yariinu sëriñ bi yarinu sëriñ Tuubaa rek la toppoon dikkul woon sos yoona mu bees waaye ni sëriñ Tuubaa doon yare ak ni mu doon tarbiya noonu la Cheikh moom Amin toppoon loolu mooy lan mooy yarub tasawuf tasawufu sunni ci la Cheikh Mouhamadul Amin Baara doon tarbiya ay taalibeem ci la tarbiya ak njabootam te boo ko xoolee ci sëriñ Sidi Mokhtar. gis ko ci mom tasawuf moylan lan te moy defar nit ki ba mu bax ci wal yep defar ko ba mu baax jikkoom bax ci wal yep nango liggey nango jaamu yalla di dimbulé deddu aduna jublu àllaaxira te loolu feeñ na ci taalifam yu bari yi mu taalif ci tasawuf loolu jubluwu ca dara lu ngir yar ay taalibeem ak yar murit yépp dileen woo ñu tënku ci lislaam ak jaamu yàlla ak liggéey ngir fonk lu lew ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne noonu jamono ngi ñëw joo xam ne nit ñi dañuy wut alal te duñ xàmmee ndax lu lew la walla lu lewut moo tax moom mu xamoon loolu moo tax mu yaroon ay taalibeem ci sàkk lu lew ak daan ca soññee fu mu toll ak tamit bokk na ci lim daan tarbiya mooy saxoo makaarimul axlaax mooy tedd ngay jikko digganteem digganteem ak taalibe yi ak kudib jullit jëflante bu rafet la la daan jëflante ak ñëpp di xool ñëpp ba tub yërmande di ñaan boromam nako waj'alni muhdiyan li ahli asri bi xurmati nabi wa xaqi al asri daana wax borom bi subhaanahu wa taala nan ko waj'alni yow borom bi subhaanahu wa taala na nga def wala nag ma def muhdiyan ma aji ginde li ahli asri ñeel sama waa jamono bi xurmati nabi ci war ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa xaqi al asri ak àqi al asr muy jamono wala borom bi subhaanahu wa yow sunu borom subhaanahu wa taala ma def may gindi sama waa jamono ci barkeb yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ku ittewoo woon la tarbiya ak ishaara ak tawjiih julit ñi ummatul islaam ngir teg leen ci yoonu laabiire mu yoonu at tasawufu sunni ci la Cheikh Mouhamadoul Amine Baara doon yar ak njabootam ak i taalibeem loola mu jànge ko ci sëriñam sëriñ Tuubaa Cheikhul Xaddim amma diggamam diggam ak mbokkam waxi sëriñ Mouhamadoul faadal ji doy na ci seede sëriñ Mouhamadoul Fadal da ko wax ne daa wax Cheikh daa wax Cheikh Mouhamadoul Amine Baara ne ko لله درك من شيخ حوى رتبا قد زانها أدب ناحيك من أدبي وظيفة دائلة لا تحصى وأصغرها ما فيك من حسن الأخلاق والحسب لنكو جنة giñ سرين لبو خمن لقد أي ay daraja ak i martaba yoo xam ne taaral na ay tegginam boroom ngëneel la ngëneel loo xam ne mënee su koo takk bokk na ya gën a ndaw ci ya gën ndaw ca ngëneel yooyee yi nekk ci yow mooy jikko ju rafet ak askan wu sell ak jëf ju baax te loolu mooy lépp loolu la ko Cheikh Mouhamadul Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké mu Serigne Touba Cheikhul Khadim loolu la tagge woon Cheikh moom Lamine Baara moom it Cheikh moom Lamine Baara wax na Cheikh Mamadul Fadal Mbàkke ne ko qad fuxta dal xalqi min ujmin wa min arabin yaa man xalaa'ifuhu yaa man xalaa'iquhu axlaa min min min assarabi abuka kaashifu karbil مستجير به وأنت مثل أبيك كاشف الكرب إنك قد فقت كوينغا ذا الخلق من عجم ومن عرب نينكو من دي فيغا خامني اي عجم لاني اكي عرب نيب يا لين كاوي يا لين فيتكاو يا شيخ محمد الفاضل yow mi nga xam ne say jikko gën naa neex lu mu mën a doon lépp lu neex rekk say jikko ko dàq te sabaay kat Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mooy ki daan wuññu njàqare yi ñi dawoon làqatu ci moom ba mujj yow kat mel nga ne sa way jur ci wuññi njàqare képp ku amati njàqare bu dikkee daw si ci yow dikk ci yow yow cheikh mamadul fadal nga wuññil ko njàqare loola loolu la ko cheikh mamadou min baara delloo ci ñaari baydim ko saddoon ne ko lillahi darruka min cheyqin xawa rutaba qad zaanaha adabun naahika min adabin وضي فضائل لا تحصى وأصغرها ما فيك من حسن الأخلاق والحسب ممت موتانت كونيكو قد فقت ذا الخلق من عجم ومن عربي يا من خلائقه احلى من الضرب نكو ابوك كاشف كرب المستجير به وانت مثل ابيك كاشف الكرب لولاكو تونت ما شاء الله ما شاء الله مي ابيات يو نيه يو خامل لا نكران جوخالانتي بو محمود فاضل صدلي بو بار شيخ محمود لامين saddu abiyadi ngir tontu ko ngir dello ko njukkal ci lolou mu ko wax cheikh mahamadul amin talifna qasida di ci tag cheikh mahamadul mustafa khalifam magam jim bokkal sëriñ tubaa cheikhul khadim ak soxna aminata lo cheikh mohamadul mustafa al karim makke di ci yeesal ak jaayanteem ci moom ni mu jaayante woon ak sëriñ bi ndax dafa jàppewoon woon Cheikh Mamadul Moustapha jëmmi sëriñ bi noonu it la rafetale digg diggam ak waa kër sëriñ bi jàppe leen ñoom ñépp doomi sëriñam teral leen màggal leen ndax loola da ko jànge da koo royee ci magam as cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke bi fi Serigne Touba Cheikhul Khadim jóge loolu la wax dana ñii samay waajur di borom daaroog maam noog maam na borom daaroog maam Cheikh Anta ak ñooñu ñëpp da leen a ba ñëw. mu ne teg naa leen fa ma tegoon sama jur jox naa leen cëru wayjur ba mat sëkk ñii di samay rakk jàppewu ma leen ay rakk waaye doomi sëriñ laa leen jàppe ndax dafa jàppoon ne sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mooy sëriñam te loolu la gëmoon dafa jaayante woon comme ni taalibe bi yëpp jaayante woon moo Cheikh Mamadul Faadal jaay seenu njureel jënde ko ak taalibe bi taalibe yi la doon tel, teel waaye nawloon tiwutoon ak wayjuram nawloon tiwutoon ak njabootuk Serigne Touba gi shiak Cheikh Mamadul Moustapha Cheikh Mamadul Lamine bara tamit ca loola la teg tànkam ba mu njëwee loolu Cheikh Serigne Mahamadul Moustapha jëmbët fi ba mu sax garab ca loola la nekkoon moo tax ku wormaaloon njabootuk Serigne Touba Cheikhul Khadim gi la ay doomi ay wayjuram mu jappelen ay wayjur mom Cheikh Lamine bara bokk na ci tamit ñi taxawoon sëkk sës rik Serigne Mouhamadul Moustapha ba lu Serigne Mouhamadul Moustapha joxañ rek mu dagg ndax sëriñ la ko jàppe woon dafa jaayante woon ak moom bi Serigne Touba jógee jëbbal ko léppam nam defoon ak Serigne Touba loola la koy firndeel mooy bi tubaab bi laajee Serigne Mouhamadul Moustapha junni nit ak juróomi téeméer 1500 personnes yu war a gas raay bi ngir ñu defar jumaa ji. ba Cheikh Mamadou musaa jaaxlee ca lim boobee Cheikh Ibrahima Fall moo ko jox juróom juróom-ñett téeméeri nit la ko maam Cheikh Ibrahima Fall joxoon sëñ ba ndumbe joxe téeméeri nit ay taalibeem sëriñ am sa tuloo bu ngaa bu joxe téeméer sëriñ Basiiru Mbàkke amoon na ca juróomi taalibe la ca des cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke mii ñuy wax tey moo tas ay daare tarbiyam ne bëggatumaa gis kenn ci dongey lu may liggéeyu Serigne Mouhamadul Moustapha bi daa àgg jox leen ndigal soppi leen ndigal ne leen dem leen ca ba liggéey baag daaraam yépp la tasoon kon lim ba Serigne Mouhamadul Amin Baara Mbàkke moo ko mottali ak sëriñ Mouhamadul Moustapha kon ku taxawoon la sa sirik Serigne Mouhamadul Moustapha déggal ko topp ko. di ko xoole Serigne Touba Cheikhoul Khadim ba lépp lu Serigne Mouhamadul Moustapha joxañ mu dagg du juyoog moom ci dara wekk ko warmaal ko teg ko palaasub sëriñ Touba Cheikhoul Khadim kon loola la séqoon ak eh, ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon Serigne Touba Cheikhoul Khadim ak ñi nga xam ne ay wayjur la lañ ci moom ak ñi nga xam ne ay taalibe lañ ci yoon wi sëriñ Mouhamadul Amin Baara Mbàkke ak Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor ab dëkk la bu sëriñ Mamour Anta Sali Mbàkke sancoon Mamour Anta Sali moo sancoon Mbàkke Kajoor ba ci man at 1880 la sancoon Mbàkke Kajoor lu waraloon mu sanc ko ci tuxu yi mu daa def di ànd ak Lat Joor mi ngi doy woon lool di diisoo ak moom ci àtte ngir xam-xam bi sëriñ Mamour Anta Sali Mbàkke ak sellam akuk maandoom waaye sëriñ Mamour Anta Sali Mbàkke daawul dëkk ak moom ci benn dëkk waaye dafay dëkk fu fu soriwul nga xam ne bu ko Lat Joor soxlaa man koo man koo woolu mu dikk ci waxtuwam ko bëgge kon bu ko bëggee gis man koo gis ndaxte moom da daan jàngale yor mbooloo mu bari moo tax mu sancoon Mbàkke Kajoor mooy jamonoy Lat Joor jamono yi nga xam ne ci la Lat Joor nekke sugeer ci kër Amadu Yàlla Mamoor Anta jamono jooja ca la sañce Mbàkke Kajoor jamono yi Lat Joor nekke sugeer ci kër Amadu Yàlla ngir mën a wéet foofu ngir mën a jàngale ndaxte sëriñ daara la woon sëriñ Mamoor Anta Sali Mbàkke am fa at wuy ju boromam ñaari at la def Mbàkke Kajoor bi mu ko sancee wuy bor wuy ju boromam ak xam-xam xam-xamam bu bari lol Cheikh mohammedul Amin ku bari won xam-xam la ku bari won xam-xam la lol te deg arab lol way lu bari ci luxal arabiyya jaaree ko ci làngu arab way lu bare bare bare ci làngu arab way yoyu bokku na ca wayam yi ñi bëgga tuddu moy wajjahtu kulli lil ilahi khaliqina wajadali bi mun arrijaali wal الحمد لله معطي الفضل والكرم ثم الصلاة على المختار ذي الشام هذا وقلبي طول دهر شاكر ربي به وبلساني ذاكر شكرته ولا أزال أعبد فيتي وتلك أبدا وأحمد شكرته بجسدي وقلمي وشكره عني يزيل ألمي loolu bokk na ci lenn ci way Cheikh Mahamadul Amin Baara nga xam ne boo ko gisee woy wi dafay dëppoo lool ak tasawuf woy wi dafay neex lool te boo ko peesee ci misaanul arut mu jox la li nu sàkku ci way dara du ci damm jinaase yi lépp mat koko moy cheikh Mouhamadul Amin bara mune ne jublu naa jëma jubale sama lépp ci borom bi subhanahu wa taala mom mi nga xamne monu bind monu may ay xewal momay gor yàlla yi ay xewal ak hikam ma ngi sante yàlla mi nga xamne moy joxe ngeenel ak tedd nga xewal ak mucc yàlla dal ci sangup mbinde fi alayhi salatu wassalam man de cheikh mamadou lamine bara sama xol dañ di sante borom bi subhanahu wa taala sama làmmiñ du dañ di tudd borom bi subhanahu wa taala sante na ko mom yalla sunu borom subhanahu wa taala te dañuma diko di jaamu fuma tollu toll koy jaamu ci aduna ak al-akhirah ngir sakku ngeureumul yalla sant naa ko ci sama wéram sant kalima. ko ci sama khalima te tiant makoy sant mo dindi ci man metit lolou moy abiya di nga xamne cheikh bokku na ci lenn ci periwurus yi cheikh mohammedul Amin Bara dan rotal ci langue arab diko way waxit ne كرامتي خدمة المختار دون ونا إن شاء ربي ولا أزال ذا خدمي محمد سيد الكونين نعمتنا خير البرية من عرب ومن عجم له اتجائي في الدنيا وآخرة يا خير من قد نفى الحساد بالألم لم يخلق الله مثل المصطفى أبدا بما مضى أن يرى شرواح في الشيم تكن قد بان للخلق فضل المصطفى سندا قدمه ربنا من سائر الأمم شيخ محمد الأمين بارا نينا سما كرامه mooy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam te duma ci sonn mukk bu fekkee soob na suma boroom duma dañ di ko liggéeyal moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam muhammad de mooy sangub nit ak jinne mooy sangub waa àdduna ak waa alaaxira yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ngën gi mbindeef ci mboolem kuy arab ak kuy ajam kudut arab a ci moom lay wéeru ci àdduna ak àllaaxira lépp ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lay wéer sama wet yow yonent bi nga xam ne yaa jeexal iñaan wala yaa dàq way iñaan yi ciw metit yàlla bindut lu mel ni Moustapha mukk ca la kenn mësu koo gis lay ñëw ca kanam tamit kenn mësta gis lu ni mel sunu borom bindut lu mel ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na wér na keng ci mbindeef yi wér na keng ngëneelul yonent bi ngëneelul yonent bi alayhi salaatu wasalaam wér na kéng ne sunu borom subhaanahu moo ko jiital ci mboolem xeet yépp moo ko jiital ci mboolem mbindeef yépp ak yeneen ak yeneen yeneeni way yu bari lool yu bokkut ak yi Cheikh Mamadul Amin Baara Mbàkke way na ko yoo xam ne xëjul fii sanc na ay dëkk tamit ngir tarbiya bokk na ci dëkk yi mu sañc daaru rahmaan ak daarul muin ak mbàkke baari ak mbàkke jongo ak ngoy mooy bi nga xam ne moo nekk ci wetu kokki ak Louga ak Kébémer taalif na ay xasida bokk na ci xasida yi mu taalif bushraaka yaa arda tuuba bushraaka yaa arda tuuba mbégte ñeel na la yow suufus tuuba cheikh mohamadul amin baara bokk na ci xasida yi mu taalif bushraaka yaa arda tuuba ak safinatul abraar batob gaañu baax ñi wala gaalug gaañu baax ñi bokk na ci yim taalif saadatul axyaar tax ak tànneef yi bokk na ci lim taalif tëbbul fuaat médecin xol yi la té la tuddee téere boobu bokk na ci lim taalif dahabul ibris bokk na ci lim taalif rumtu bi ahlil badri ak munawirul bunyaan di xasida gu siiw ak yaa rabbana antal muin ak yaa faacilan lima yurid ak xamdan li rabbin qad tayyaba daara bokk na ci ay ta ay muallafaatam moom cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbàkke yi jikkoom moom cheikh Mouhamadul Amin ku yërëm mbindeef yi la woon lool amul xejj ak seen ci ñëpp jullit ñëpp la yemale woon ku yi ku leen yërëm la woon amuloon xëj ak seen ci lenn ci ñoom amuloon sago ci sopp gi mu soppoon jullit yi moom seex moom Lamine Baara ak yéene leen ak di leen ñaanal yërmande yàlla fu mu toll ku amul yërmande la ci ñoom ak di dimbalee fu mu toll Cheikh Mouhamadou Bara royukaay la royukaay la it lu mu doon royukaay ci dëddu àdduna ak woyofal àdduna lool xam ni àdduna bu amoon njariñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu amoon njariñ julit ñee koy moom ndax adduniyaa sijnul mu'min wa jannatul kaafir àdduna kaso la ci julit di àjjana yéefar moo taxoon mu woyefal ko lool moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak jaar ci siraatal mustaqim yoon wi nga xam ne moom la yàlla rëddal julit ñi ne jaar leen fii Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci yoon woowu la tegoon tànk mësu ko wàcc ak digal ñëpp jaar ci jaaru cere waaye da ko da caa jaar digal ñëpp ñu jaar ci yoonu siraatal mustaqim ba ni ñu ko noppee gis ak génnam àdduna moom Serigne Mouhamadul Amine Baara Mbàkke ngi génn jamono ci atum 1952 at waahiram war a toll ci isnin wa arbaun di ak ñaar Cheikh Mouhamadou amoon na ko ci dundam bi mu wàccub liggéey yàlla na yàlla sunu borom subhaanahu wa yokk ay leeram te tas ñu ci barkeem ci barkeeb Serigne Touba Cheikhuna Ahmadou Bamba xaadimu rasul mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokk ustaaz imam Masamba Syll moo leen doon waxtaanal ci jaar-jaaru mag ñi tey ñu indi woon kenn ci njabootuk Serigne Touba Cheikhul Khadim di a Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke xalifa général bi nga xam ne moo fi toog ñu di ko wax Serigne Mokhtar Mbacke dig leeram ñu koy sant di ko ñaanal sunu borom subhaanahu lépp lu mu nësër ci yoonu Serigne Touba mu àggale ko ci kem kàttanam di wax ne yàlla daa dogal ñu jëm ci màggaluk Mbacke Kajoor te bu ñu waxee Mbacke Kajoor xel yépp dem ci sëriñ ci Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke mii ñu doon waxtaane di sant mboolem ay xulafaam yi nga xam ne ñoo ko fi wutoogun sëriñ Abdou Aziz Baara ak mboolem ak njabootam di sant ak gërëm xalifaam ak di ko ñaanal sunu borom subhaanahu wa yóbbu ko ca aljanna ya gën a kawe muy sëriñ Modou Baara di premier sët ci sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim di sant ak gërëm mboolem ñi nu nekkaloon ci technique bi sëriñ Mbacke Dieng wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di wax ne lu jup ci kaddu yi ci borom bi subhanahu wa taala la ak beug Serigne Touba ak Cheikh mon Lamine min doon waxtane waye lu ci deung sunu ñak xam-xam la ak sunu gatt fasaha ak gattu jeego ñu ngi koy jéglu ñëpp di wax ne ñu woon lu dut yewenal ak defar ak mak ni xam le njabootuk Serigne Touba gi ba ñu jottu doon jot ci wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa jëf